jërë ngeen jëf mbokk yi mi ngi noonu kon yaakaar naa ne liñ leen indiloon ci journée tey bi neexoon na lool ci li nga xamante ne moom mooy wàllu làmb mhm. li nga xamante ne moom mooy ambiance gis wàllu tuus gis wàllu bàkk waaye dañuy taxaw rek balaa ñuy e, e, e, ñuy clôturer ci loolu lépp ci grand combat bi nga xamante ne mhm. tey Sénégal ñi ngi ko doon xaar nag grand law ndax mën nañ ne combat bu yàgg la mhm. wàccaay yàggoon na ñu koy annulé booboog léegi ñu bëri sax doon xel ñaar ndax làmb ji dina am euh, wala du am ba tey suñu borom daal di koy dogal mu daal di am waaye gis nañ li nga xamante ne rek noonu la làmb ji demee. Euh, waaw dañuy santaat yàlla bu baax bu baax a baax di wax alhamdulilah rabbil alamin euh, di remercier ñaari athlètes li nga xam ni. Mm-hmm. tey ñoo doon bëre le grand combat. muy Gris Bordeaux bu Gris Fass euh, Amadou Balde bu Faalaay Balde Gris Balde mu nekkoon combat boo xam ni dund nañ ko presque deux ans ñu annulé ko annulé waat ko annulation yëpp day tombé ak ay coup blessure mm-hmm. mu métti woon am promoteur bu ko téewoon dem ci biir mu métti ci moom mu jox arburaax Alburax tamit euh, ñoom it ñu leen di ñu leen di gërëmaat bu baax euh, ci li ñu ñu li ñu dundaloo. Mm-hmm. parce que tey mu ñu waxee trois semaines yi passé dundaloowaat nañ ñu làmb tax nañ nit ñi amaat envie sax demaat stade seetaat ñu war làmb. Mm-hmm. Euh, di gërëm bu baax a baax ki nga xam ni mooy Gris mm-hmm. moom mi nga xam ni moo fekk Ama Baldé mu toog. mu tàlla ko loxo na ko ñëw ma may la sens waaye Ama Baldé day mbër moo xam ne fépp fu lépp lu mu am ci làmb jom moo ko may ak fulam ak faydam mënoon na sax ak yorom ne kon damay toog rek déedéet may doomi Fallaye Balde may doomi ci réew mi ci réew mi di rakki Zil Balde <laughs> di nijaayu Pokola ak ak ak Jacob <laughs> loolu rek titre la ci réew mi bu la neexee nga aj say mbagg mbarke alxuraan billaahi wallaahi taala mu nekk combat bi nga xam ni euh, préparé nañ ko ñoom ñaar bu baax parce que boo gisee seen i prépare tey ñoom ñaar am kenn ko ci wax cama <laughs> duggaguma sax ci làmb ji mais damay ñëw ci ci euh, tey seen génn ñoom ñaar seen génn seen tey parce que tey boo gisee Ama bi mu xëy le matin génn def ay sarax nga gis comme ni mu ko doon defee Pikine ñëw comme ni mu doon ñëwee mais tey sax boo xoolee suñu ay plateforme duñ ci mën a gis parce que tey dañ ñëw Pikine ñu écarté li nga xam ne mooy presse bi mm-hmm. euh, mais dëgg la tamit parce que bés bés bee ñu toll mm-hmm. moo tax des fois bu ma dajeeg presse bi euh, bu ñuy xuloog waa kër yi dama leen ne jaru ko ndax yow da wut ay vie ñoom dañuy xool lu leen arrangé parce que tamit euh, seetaan waxul dëgg waaye yàq na xel parce que am na presse bi du ñoo xam ne dañuy ñëw pour yàq wala ñu ñëw def naka sulu noonu moo tax des fois dañuy boolandoo ñëpp teg leen côté euh, ngi jégulaat bu baax ci waa Pikine mm-hmm. euh, li war tey ñi nga xam ne gisuñu tey suñu ay plateforme génnu Ama Baldé mais incha allah bu neexaala bu subaa jàmm danañ dem Pikine mm-hmm. seeti yàgg naa wax ni Pikine Ama Baldé muy mbër mu mag mi mm-hmm. mais neexul dëgg boo ko waxee rek dañ lay xaw a mere parce que xam nga tax xaw a mere parce que déggin bi moo laaj jaara Ama Baldé day mbër moo xam ni euh, champion bu mus a taxaw ci làmb jàpp mburu Pikine moom ci génération ku musaan jàpp mburu Pikine daan leen mu daan la. moo lay fayul fayul ku ci mel ni ama neex ba mu jàppee mburu Pikine daan leen moo ko fayul. te loolu il faut gars yi xam ko taxaw seetlu ki nga xam ni mooy Moustapha Tine ba mm-hmm. Baldé fayu mm-hmm. kooku dafa leer te ñëpp a koy gisal seen bët. Mm-hmm. tey ki nga xam ni mooy Zos bi mu jàppee. tamit boor Pikine daan Ama Baldé moo dindiwaat loolu tegaat ko fi mhm. ba tey maa ngi koy wax si suba si boo xoolee direct bi nga xam a la day mbër moo xam ni heure bu Pikine mosaan am mbër bu leen sonal moo koy dindi tey dindiwaat na relève dem si yàlla yàlla na ko yàlla xaare àjjana feral na ko meram mhm. feral na tey ki nga xam ne mooy Eumeu Sène meram mm-hmm. kon tey euh, Ama Baldé euh, gàcce ngaalaama mm-hmm. def nga la war a def la nga waxoon def nga ko mm-hmm. te dafa am loo xam ne itam euh, bi mu ci jógee yaakaar naa ne xel yi ñi ngi doon laam-laamee ne Ama Baldé mi ndax mi ngi fi wala nekkatu fi ginnaaw bi mu jógee ci diggante mag Modou Lo ñi naan dafa blessé ñi naan état bi baaxul coow li bëri woon waaye mu mel ne nag ci bi nga xamante ne gis nañ ko ci wàccaay yi bi mën nañ ne comme ni mu ko waxee woon rek Ama Baldé mu wér à cent pour cent yaakaar naa ne ndaanaanam ci ci moom moom lay yem. waaw li wax ci signature contrat man damay bëgg des fois mbër moo xam ne ci signature contrat loo wax na ko def Ama Baldé bokk na ci mbër yi nga xam signature contrat bu ñëwee na tey damay dagg sama baaraam bàyyi ko fi day dagg baaraam bàyyi ko fi waxoon na ko nee leen yow giri danaa jël sa coup ba pare bërëg yow daan la def na ko jël na giri coup giri Bordeaux protège daanu giri Bordeaux sëqatal na ko daw jël tànkam Ah, tibb ko di ko jéem a tëgg di ñaan mu daw génn saaku yi wan ni moom mbër bu mag la xam nga war na ko def ci Modou Lo mm-hmm. def ko ci Modou mais tey moo tax ma la des balaa nga xam-xam di xaw laa rey mm-hmm. tey moom la bëree ba pare indi état bu baax Ama Baldé bi ñu gis tey amaa Baldé bi nga xam ne moo bëree na Modou Lo mm-hmm. wute nañ parce que Ama bi ñu bëree Modou ñëw na indi na masse euh, ñëw na bëgg na bëri bëgg na remplir contrat

sonal mbëri nañ ma jox ticket nañ ma jox ticket nañ ma jox ticket mais loolu dinaa ci ñëw ci fin bi mhm. mais en li ma la mën a xamal daal mooy Ama Baldé tey bi ñu gis Ama Baldé au top la tey Gris bi ñu gis gis nañ Gris bu entraîné mhm. Gris bu def presque cent trente kilos mhm. daw yóotu tànku Ama Baldé daanaka man li bëri Gris bëri na tey lu loo xam ne jaaxal na ma euh, mbër moo xam mbër mu mag buy dóor daw jël tànk Gris Bordeaux bëri na ko tey Ama Baldé boo xoolaatee bu baax combat bi nga xam ne Gris def na li mu war a def. donc mënuñu ko reprocher dara dañ koy encourager bu baax a baax. waaye rek tey bu ñu taxawee taxaw seetlu ci combat bi gis nañu ne bi arbitre sifflé mhm. ñaari mbër yi combat bi yàgg na. Mhm. léewtoo bi yàgg na. Mhm. tey jii ñu bari ne woon. combat boobu arbitre ne teg xeex bi mën naa gaaw. am ñu ne woon combat bi du yàgg. ndax buñ ñamantee dañuy jàppante. waaye amaana itam loole nekk na loo xamante ne dañ ko doon séntu te gisuñu ko ci biir làmb ji. waaw bi waxoon naa ko ne woon na Gris Bordeaux Gris Bordeaux mooy dirigé euh, yàlla dimbal na ko bu defee cinquante combats mm-hmm. les neuf combats yi moo ko dirigé mu am ci ndam mu ñaax ci am ndam mooy dirigé ay combats yàlla dimbal na ko ci loolu. Mm-hmm. gis nga mbër muy ëpp avantage ci làmb muy mbër muy dirigé gis nga football bañ na sax ba nañ ne équipe bi ëpp li muy attaqué. Mm-hmm. mooy ëpp mille chance pour mën a gagné. Gris moo dirigé combat bi boo gisee Ama Baldé ñëw na taxaw euh, liir Gris Bordeaux xool gauche xool droite xool état wu Gris bi dem gauche xoolaat ko xool garde bi nan lay wàccee. mu cokkaas ko Gris Bordeaux déclenché xeex léegi mu ne ma kon Gris Bordeaux déclenché na xeex bi kon len laa ko mën a def ñu ne ko lan nga ko mën a def mu dama koy remise Gris Bordeaux dóor gauche droite teggi bi loxam teggi si xam nga ku remise ku boo gisul buy dal caw Gris mm-hmm. moo tax coup bi dafa dal directement a sóor te Gris Bordeaux ku xam ci xeex mm-hmm. ku xam ci xeex dëgg-dëgg xam ne Gris Bordeaux néew na mu ñëw ci xeex ñu gaañ ko bii nag mooy deuxième fois ñu gis nga xam ne mooy Gris Bordeaux dem Ardo eh, mais tey nag euh, ni ñu ko jàngatee daal mooy nekk na combat boo xam ni man j'attendais pas à ça que ni day jeexee sax. résultat mhm. moom moo am combat bi. Mhm. ñu bëri ñu ngi ci doon xaar euh, mbër naan mbër ba toog ci kawam. Mhm. mais tey coté bi nga xamante ne fa la fa la combat bi jeexee muy décision arbitrale. waaw arbitre si arbitre c'est le maître koy wax léegi léegi arbitre moom bu ñu xasee dugg ci làmb ji ba taxaw entraîneur yi toog mbokk yi toog ñëpp toog arbitre mooy diriger. foofu moom mooy xool lu ko neex mu def ko mooy xool lu nga xam ni mooy lu règlement bi wax mu def ko waaye arbitre bi def na ànd naa tey lu règlement bi wax tey moom la def. Hmm. mais nag euh, il faut tamit ñu waxtaanaat tuuti ci làmb. Hmm. parce que Gris Bordeaux bëri na fee mbër gaañ ko comme nii mu tafal mbër mi na ko ñëwal nga bëriwaat mu bëre. Hmm. kon tey Gris Bordeaux am na defet boo xam ne bu ñibbee këram dana ko metti ah, te te nañu xaar tamit dana génn ci suma xalaat bu gàtt. dana génn dina ci wax. te waa Fass dinañ ci génn dinañ ci wax. Mm-hmm. parce que tamit euh, làmb ji des fois da nga naan est ce que amul ku ndey ak ku amul ndey. Mm-hmm. parce tey Gris boo xoolee ci làmb ji xaw na ci wéet tuuti. Mm-hmm. parce magu Fass yu bëri gisuma leen ku ci mel ni Moussa Gueye le tigre de Fass daan na ñëw. Euh, ëppale gis nga jaara dafa am loo xam ne euh, gis nga dëgg bu jotee dañ koy wax te dee. Gris Gris Fass dafa am loo xam ne dañ ko dañ leen ko mooñaale ku ci nekk le tigre de Fass dañ lay dañ lay taxaw man daxoon naa benn Lac Rose di bëre wala benn Serigne Ndiaye di bëre wala benn euh, Pape Ndoye wala tey benn beneen mbër bu ndaw wala Gris 2 wala caatu Fass di bëre mhm. garaawul wala dun bu Fass di bëre Moustapha Gueye bañ a ñëw mais Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass mhm. Gris Bordeaux mi nga xam ni moo yor yaakaaru Fass Gris Bordeaux mi nga xam ni toog na ci 10 ans kenn gisul mu am ci victoire ci làmb mais bëriwu ci boobu ba léegi ay 3 combats 4 combats la ci bëri kon tey gisul waroon nañu xëy gis Moustapha Gueye mu ñëw fi nga xam ne mooy kër Gris Bordeaux yokk ko doole parce que tey loolu lañ doon xaar ci moom nañu waxtaan carrément xaw ma nag euh, mun nañu warante téléphone mun nañ déggante mais xam nga dañ toll ci jamono joo xam ne jamono yi gis la li ñu naan teraanga àdduna bët mm-hmm. il faut ñu bàyyi ci xel bu baax a baax mm-hmm. mais daal en tout cas dinaa la ni CNG def nañu li ñu war a def parce que loolu euh, ñoom ñoo ñoom ñoo xam seen i ay règlement ñoom ñoo xam parce que man tey xaw ma règlement wu CNG li ma a xam daal mooy 4 appuis <laughs> jël la li ma ci mën a xam daal mooy boo amee 5 avertissement gagné nañ la sotti délivré boo ko defee dañ lay dagg sa sa sa sa li nga xam ne mooy reliquat 14 pour cent loolu moom yëpp dégg naa ko mais problème bi daal mooy nañu xoolaat lamb yi parce que am na lamb yu mag yoo xam ne ñu toog pendant des années jaara di ko xaar. mais tamit ku gaañu ba mën a toog. waaw tamit on est obligé arrêter lamb. ñoo Gris gis nañ ko bët bee ngi gis man euh, man jaara man dama ut ak ñeneen ñi. Euh, gis nga làmb Mbaye Gueye euh, day Mbaye Gueye day bëri ki nga xam ni mooy euh, ma fàttul jàpp ma mbër mi mu baax mais Mbaye Gueye bëri naa mbër moo xam ne Mbaye Gueye dañ koy jàpp di ñaw déggoo ma de arène Sénégal Mbaye Gueye dañ ko dóor ba R4 bi toj boobu làmb tollu fii mu toll nii boobu millions yu bëreewul nii mm-hmm. te boobu làmb dañ doon fay xaalis rek mais mm-hmm. bëreewuloon nii Mbaye dañ ko jël tafal ko ko fompal ko ko ba mu rafet bàyyi ko cinq minutes parce que problème bi mooy euh, am nañ temps. Mhm. parce que tey boo demee ardo war nañ mën a ñu may la même bu dee benn cinq minutes boo xam ne giri boobu parce que nit buy ñàkk jaara tey boo jëloon puso bënn fii sa loxo nga daw tuuti ñax sa deret day tuur kenn mënu ci dara. Mhm. mais problème bi mooy war nañ di mën a tey mënoon na dal tey Ama Baldé bu daloon Ama Baldé nii moo ko waxee ci Gris Bordeaux noonu laa koy waxee ci Ama Baldé parce que ñun làmb rek la ñu bëgg mhm. euh, ñun Sénégal lañ fi toogal taskatu xibaar lañ lépp lu ñuy wax dañuy bëgg mu doon lu wér te réel nag loolu la ñu bëgg di wax chaque jour. moo tax ma ne daal en tout cas mënoon nañu may ko mais bu dee benn 5 minutes mu toog arro ñu xool may ko benn 5 minutes ba yaram bi sedd ñu xool na gën a mën a ñëwaat. Mhm. mais daal comme defee wuñu noonu euh, Ama Baldé moom moom la jox ndam euh, dañ koy félicité bu baax a baax. Euh, di ko ne ndam bi ndam lu am solo la. mooy ni ma commencé woon Ama Baldé am na ndam lu am solo ndam loo xam ni dina ko yóbbuwaat ci làmb foo xam ni dina mën a tollaat fi nga xam ni fa la tolloon parce que bu ñu fàttali Ama Baldé combat royal bokk na ci xale yi njëkk a bëri combat royal mhm. boo xoolee ci carrière da ci bëri ay combat jànk ku ci daan Moustapha Tine mhm. daan ama neex euh, daan guy gi daan zos mhm. tamit nga ñëw teg ak euh, nu tudd daan ko nga xam kenn mënu koon daan euh, bërik Modou ñu gis ni mu bërik Modou Lo sëqatal ko dóor ko Modou Lo daw sonko mu déclenché ko du ko dóor mbot loxo bi surux amul lan ñu ci jàpp Modou Lo ko ndoom mu daan ko mu xëyti ñëw gën a defaraat boppam te pourtant Ama bi muy jógee ci Modou feebar na mais boo gisaatee nii Ama xool di nga xam ne ñëw na mais jom jeng fi mhm. mais ba léegi des jaara maa lay wax lu garaaw. c'est të të të të Balde bii bu amaatee confiance. mbër daan ko ci làmb ji du yomb de. ayca Ama Balde ginnaaw ci lii. Mhm. fan la mën a jëm. waaw Ama Balde fi mu war a mën a dem euh, bëri na trop. lenn mooy am day nangu def grand contre petit wala mu toog xaar. waaye mhm. mënul Sa Thiès. Mhm. du xam naa ni benn mooy am mu décider. ne man dama am Ama Baldé fi ñu toll nii ci làmb def naa ci li ma ci war a def bëri naa combat royal amuma ko hmm. léegi nag damay wut xaalis ci làmb defar sama defar sama avenir defar sama avenir waa kër hmm. xool ni may luwee mooy man tey mënoon Ama Baldé day may sens ki nga xam ne mooy sàcc mooy mooy mooy booy bi mujjee bëri muy Ada Fass waaw may am na combat at rëg rëg day war a fa war a bëri rëg rëg mais problème bi mooy temps bi yàgg na mais ci biir temps bi nga xam ne parce que Reug moo war a bëre ki nga xam ne mooy mooy Boy Niang te dégg naa combat bi jàpp nañ ko ci mois de novembre léegi moom il faut Reug bëre ama ba pare moom mu doog a xaar pour bëriwaat mais ama bi nekk nii mm-hmm. waratul toog 3 mois 4 mois yu mu bëriwul su fekkee bëgg na nekkaat champion bu mag mm-hmm. waaw négal Ada Fass mm-hmm. Ada nga gis ne combat bu jaadu la ci digganteem mais tey buñ doon wax Ama Baldé ak Franc tamit waaw Ama Baldé euh, du jël Franc Ama Baldé jël Franc lu tax daa bëgg a nekkaat roi des arènes te Franc nee mbër mu fi daan Modou dootul bëre ak moo tax Franc moom mooy nekk at mooy nekk mbër mi nga xam ni mooy gën a néewle adversaire jamono ñu toll nii tant que Modou mu ñàkk ko. boo ñëwee ñëw jaar ci Franc non Modou moo dafa leer bi mm-hmm. moom may ga mooy rideau bi mooy rideau may ga Modou Lo nit ñi xam ko mm-hmm. Franc laa ilaha illallah njaago bi. Mhm. ayca suñ mhm. taxawee tamit ci côté Gris Bordeaux. Mhm. moom tamit gis nañ euh, liggéey bu am solo bi nga xamante ne def na ko ci combat bi comme ni nga ko waxee bi mu ñëwee yaakaar naa ne ay supporteurs am jéppi wuñ ko. il a fait ce moo moo ànd ak Ama ci façon bi mu ko neexee. tey jii tey boo am loo xam boo am boo amee tey loo xam ne. dag ñu koy wax tey ci Gris Bordeaux ci waaye ci ëllëgu làmbam ndax gis nañ ne ci biir combat bi ñu doon wax naan jeexal na. na dem retraite et tout. non Gris damagul i laa ilaha illallah Gris bi ma gis tey mm. Gris Bordeaux bu dóor gauche droite daw jël tànk daw tëbb ko naax mm. Ama Baldé génn mu jël coup perdu mu tax mu ñàkk làmb ji non non non Gris jeexalagul te Gris man tey sax buñ tey mënoon nañ neexal làmb mais la dëggee la dëggee amul problème mm-hmm. daa am lu ñu koy toppee mm. mais la dëggee na jël Gris Bordeaux jaa ngi noonu taxaw jaara la <laughs> dëggee Gris Bordeaux la ñuy taxawal mm-hmm. alburaax taxawal la dëggee Gris Bordeaux la dëggee jël ci avance bi fay caution bi génn na si jàmm lamb jaa ngi noonu. ba lamba koy dàq. giri mënu bëreeg Moustapha Tine Siteu daa nekk ci avance. te giri Bordeaux du bëreeg Franc. man xam naa giri. parce que Franc dafa am adversaire potentiel. yu nekk igri face. ku ci mel ni giri 2. Franc dafa war a bëreeg moom. ku ci mel ni Serigne Ndiaye. Franc da ko amal revanche boo xam ne da ko war a jox. kon tey giri bu te giri Bordeaux euh, te igri face li tax ñu neex ma ci benn côté mooy euh, igri face du ñu xëccoo combat. Mm-hmm. igri face mooy igri boo xam ne euh, bu kii waree bëri kii. non non non yow yaay bëri am na ci équipe yi bëri nag mais équipe Fass da cee nekk dafa ne boo xam ne euh, joxante nañu cër seen ay mbër mm-hmm. loolu moom moom maa la ko wax ëllëgu Gris Bordeaux moom mooy mu góorgóorlu defaruwaat fii mu ne lancé bi mu nekk nii bu mu ko bàyyi na delluwaat Espagne fa mu demoon dafa delluwaat defaraat xam ne amaat na cër ci làmb ji war na cee mën a amaat ñaar ba ñetti combat Gris mhm. war na mën a bëraat moom Lac de Guiers loolu combat dax ko combat jànq la mhm. waaw waaw balaa tey boo ñu doon defal bilan mhm. généralement ci journée tey bi ak Alburax waaw tey journée tey bi Alburax dox nañu journée yu neex tey euh, bu ñu xoolee ki nga xam ni mooy papa nu mu tuddati papa bari bari daan na ki nga xam ni mooy Bou Siteu man Bou Siteu sax yaakaaroon moon tey dina bëri si euh, moom it ñu koy masaw bu baax baax di ko jaale grand frère euh, di ko wax yàlla ko yàlla xaar àjjana yàlla jégal ko ay baakaaram bu baax moom tey ñëw na parce que boo gisee sax bu gis nañu bu muy demee fi nga xam ni mooy mooy Abidjan entraîné na fa euh, ñëw indi amoon nañu yaakaar ci moom nag quoi que ni bu Siteu tey bu ñëwee dina changé mais boo gisee da koy bëriwaale ba ñàkk moom it mu am jom moo tax mu demee noonu bu ñu ci loolu dañu ñëw ci combat bi nga xam ni moo opposé woon ci diggante nga xam ni mooy Gackou 2 ak euh, kii. ak jëf kii eh, nu mu tudd sax. bul laal mu bu laal mu nekk tamit combat bu neex. Euh, bu laal ki ko daan war na ko daan parce que Gackou 2 moom champion la euh, boo gisee moom bi muy mbapat ba léegi ni mu mel la mel moom it bokk ci mbër yi nga xam ne téye na téye na yaramam. Mm-hmm. muy bokk na ci mbër yi nga xam ne boo depuis boobu ba léegi nag euh, benn ligne bi mu yor baax na mais nag na yokki maas tuuti mm-hmm. parce que bu fekkee bëgg na daan ay moromam mm-hmm. dafay yokkiwaat maas jéem a génn dëkk bi tuuti parce génn dëkk bi benn avantage bi ci nekk jaara mooy euh, du damay génn dëkk bi pour ngande fii mu nga fay toog ngande mm-hmm. mais avantage bi am ci moom bu ci am mooy boo génnee di nga am temps de récupération boo demee salle entraîné ñëw di nga a tëdd noppaliku doo génn xaama dem gàlle saali wala kër kër naa ne fa ataay déedéet foofu da ngay toog noppaliku bu ngoonee nga ba di nga boo ñëwee di nga jàppaat masse moom it ñu koy ñaan moom it mu génn euh, bu laal tamit euh, ñu koy encouragé bu baax a na ko na góorgóorlu euh, am na cër ci làmb bu ñu jógee ci loolu dañuy dem ci ki nga xam ne mooy mm-hmm. armée mm-hmm. armée mi nga xam ne moo bëre nga xam ne mooy ndigal mm-hmm. ndigal di mbër moo xam ne moom laa tuddee dollar ndigal day yéeg ko wàcc ni nga koy gis ni ndigal xam daan na tey suba mën na xëy beneen booy daan ko ndigal nag moom it il temps <coughs> ak ñeneen ak ñeneen te ndigal mi gi bëgg a yàgg fi mu nekk lancé bi mu nekk nii ndigal dafa war a xam ni mbër la tamit dafa war a góorgóorlu bu baax a baax mhm. am benn lancé bu baax euh, armée nag armée nag bu ma juumul armée dëgg euh, armée li ko yóbbee lii moo ko yóbbee boppa mhm. parce que armée mu mooy li ma wax naan mënoo bëri ambulance bu Thiès mu daan la nga jóge fa dem jëli Tafa Gueye numéro de mu daan la mais depuis boobu ba léegi nga jóge fa defe naa mbay guy gi la jël mbay guy gi nga bëri mbay guy gi ñu gis combat bi yëpp li ci jaar mm-hmm. nga ñëw war a xoolaat ni nga koy ni nga war a defaree sa carrière nga ñëwaat jëlaat ki nga xam ne mooy ndigal mu daanaat la ah armée tamit moom it euh, fi ñu toll nii lamb ji amatul neexal de ay non c'est-à-dire lamb ji léegi amul mbëri sax dëgg la du permanence moo leen di boole de mais da ngay indi ay supporters ba pare indi fulla ak fayda parce que tey armée bi nga gisee bi ma gisee armée jàppante ki armée armée li mu waroon def defu ko armée entraîné wul dëgg moo neex yàlla. am na maas non déglu ma defal nag. non armée entraîné na. non non c'est que xam nga problème bi mooy néew a nga ne la fay jox la avance te doo entraîné. mais entraînement mm-hmm. parce que gis nga adversaire boo ko amee da nga koy da nga koy jàng. entraîné li ma war a li ma war a bëri moom foofu laay waxee. Mm. mais armée yabuñu ba ba koy jox avance te du te du ko lii te du mais problème bi mooy na gën a góorgóorluwaat gën a yokkaat ay entraînement dem wàccaat ci liste simple bi dem contact yi waat. na dem ànd ak sa général Malika yaakaar naa benn benn benn benn boobu la parce que mm. euh, benn baraag ak benn doomu ndeyam la na wàcc dem dem contact yi waat dem ci lutte simple bi bu ko defee dina amaat confiance tuuti ci làmb ñëwaat bokkaat parce que xale la am na cër ci làmb bu man daal li may bañ daal mooy ku gis am ñaari defe na damay gedd dem bitim réew soo nee bitim réew lu gën a méttee fee nga ko fay fekk acca bu benn baraak ñi ngi koy encouragé bu baax a baax di ko wax ne ko addunaa demee nii ndax ndam lu nekk indi nañu ko tey itam bu benn baraak demee tey bañ naan benn baraak armée moo tax donc ñi ngi koy ñaanal bu baax a baax suñu borom teggil ko ko li nga xamante ne moom mooy tolof tolof yi ci yoonam te su amaatee yeneen combat suñu borom may ko yeneen ndam ak ñi nga xamante ne saa su nekk ñoo nekk si wetam ñu encouragé leen bu baax a baax baax ñi nga xamante ne ñoo jàpp ndax combat bi mhm. dañoo jugaat dañ ko jàppalewaat dañoo taxawaat taxawaay boo xamante ne ndam kase la ñu gisoon mais suñu borom ak ay dogalam comme ni ma ko waxee ñuy masaw benn baraag yëpp rawatina waa Jokko mm. euh, masaw Pape Thioub ñoom ñëpp ñi nga rek ñoom ñooy mm-hmm. a baax a baax grand law euh, exploit bi nga xamante ne def na ko moom itam ndeysaan dëggalaat boppam wane waat maa ngi ci laa mais balaa ngay def da sori mais des na nga xam ne mooy Jos ak nga xam ne mooy <laughs> Liss Ndiago tamit bëri nañ combat bu neex moom mooy meilleur combat sax tey ji non tey waa tey moom mooy meilleur site mm. waaw tey bu ñu xoolee ci grand combat yi combat yi dal yëpp moom mooy ci meilleur site mm. parce que nekk na loo xam ne xaaruñu ko woon dañu yaakaar ni que ni bu ñëwee tey day xeexal booy bëreeg moom mm. mais Zoss li mu def moom mooy engagé booy bi ci benn cinq minutes bi bëreeg moom daw song ko mais deful moom Zoss doon mimé rek ndeke booy bi mi ngi xool point bi rek ba na ko a baax euh, a dégg daal lii kese la mhm. fullaak fayda def li nga war a def ndam yàllaa ko moom mhm. yàllaa ko mais Zoss moom it def na carrière bu exploit def na carrière bu baax mhm. mais le conseil mooy mu arrêté bàyyi làmb parce que am na loo xam ne moom dog-dog yoo xam ne la commencé def ci làmb làmb da nga koy bàyyi balaa mu laa bàyyi boo bool kenn du ko a yem euh, ko bu baax a baax wane na ni couleur Ndakaar la yor tey Arafaas dugaat dugaat na cour des grands Arafaas dañ euh, dafa génn euh, waroon yéeg ki nga xam mooy Ondou Lô arrêté ko. mu jóge fa dem bëri ji ay bébé bi defaat lu ne ba ñëwaat tey tollaat ci lance bi. war a dugg ñu joxaat ko Zarko. Zarko Zarko freiné waat ko. Mm. mu ne du ma bàyyi mu dawaat jëli ki nga xam ne mooy Zos daan ko birki Demba Ndiaye. ñu waxati mu ne damay jëli ki nga xam ne mooy guy gi Arafat loolu boole guy gi ma leen xale laa dama am doole te dama am fu ma teg sama bët. Mm. ñu ne ko foo teg sa bët mu ne fi ñoom Balla Gaye 2 nekk fi ñoom nga xam ni moom ñoom Modou Lô fa lañ nekk fa laa teg sama bët. Mm. moo wane na ko tey prouvé na ko Arafat mooy li ma la tey ne la fi ñu toll nii ku bëreewul ak moom da nga a ragal. waaw te fi ñu toll nii Pikine Ada dafa am ñaari mbër yoo xam ne war na faa mën a bëre ak ñoom. wax naa la ko léegi Eumeu seen war naa mën a may sens nga xam ne mooy Ada Fass. tey Ama Baldé na jëlee Ada Fass. bëre ak moom Ada mii tey ku ci bërewul ak moom bu ëllëgee bu la fekkee ci kaw dana met ci de. ayca waaw balaa ñuy jeexal tamit ñu gërëm internet yi nga xamante saa su nekk ñoom ñooy mhm. topp Médina TV ci mhm, lépp mhm. loo xamante événement la wala actualité ñu ñu ciy topp ñoom itam ñu leen koy jox ngir ñuy mën a kontaan comme nañ koy defee ci lépp loo xamante rek seen ay bëgg-bëgg la Médina TV da ciy dox waaw loolu tamit ñu koy waxaat euh, mooy li may wax chaque jour naan yi dañuy suivre un partout dans la yem déedéet tur bi tudd Médina rek mais yàlla def ni Médina bi fu ne nga koy jotee tey boo xoolee nit ñi nga xam ne ñu nekk Médina TV tey Médina TV daf ñuy boucher ba nga xam ne ci côté suñu ay plateforme comme TikTok wala dara da ngay gis les vidéos dafay naaw mhm. nga xam ne carrément ni Médina TV liggéey bi am na solo gars yi ñu ngi bàyyi xel parce que gis nga gars yi nit ñi kenn moomu leen mhm. moo li wax naan gis nga boo amee xew mu nga loué basse loué 16 mi nit kenn du ko kenn du ko mhm. loué nit moom moom téléphone mooy xool lu ko neex mu seetaan moom moom connexion am mooy xool ku ko neex mu seetaan nit mooy défilé mooy xool lu ko neex parce que tamit bu ñu fàttali ki ne ci ginnaaw muy sëñ Saalum di def miniature yu am solo di def nga xam ne mooy mooy def production bi mooy technicien bi mhm. moom Samba Amina nga xam ne mhm. dañuy nekk ci liggéey bi di ci daw bu dégg bëccëg Médina TV ñu ngi ci côté Médina équipe bu am solo équipe bu am dynamique équipe boo xam ne xolo tey depuis ce matin presque yaa ngi débarqué wu mhm. nekk ci bagage yi daw góos Samba mi ngi fële di daw Saalum même chose man dama si réveillé le matin Margaret sax tey am na ay yoo xam sama mag bu ñuy ganale ma bàyyi lépp parce que tey mais liggéey bi parce que <laughs> problème bi mooy euh, depuis bi combat bi taxawee coow li dafa bëri mhm. maintenant tamit dafa liggéey ci làmb ji liggéey bi nga xam ne ñu bëri tey bu ñu dayee man xam lu law lu leen dem stade mhm. mu ne ko non ñun li ñuy def ci beneen côté non law yéen da nga doon dem stade mm-hmm. parce que combat bi tax jaay ngeen ko mm-hmm. ñu ne ko la mën na ci semaine combat bi ngeen ko jaay bu dese ay cinq jours six jours euh, maintenant ci yëngal mm-hmm. dem ci open press yi dem ci point de presse yi yëngal dafay bagage xam lu tax parce que dañuy marqué suñu pas ñun ak gars yi bokkuñu parce que ñun bu ñëwee ci open press mbër mais man dama dafa am loo xam ne jaara man gaw ma ko man mbër doo ko jox avance jox kii avance nga mu nekk presque six mois sept mois di entraîner mu ñëw nga naankaan ndax pare nga waaw loolu kenn loolu du question loolu du question man dama gëm mbër Euh, da nga ko da nga koy jiitu ci mbartam mbartam bi mu jëm nga ne ko mbër fii ak fii ak fii bu ko defee automatiquement dala ciy tontu. ni papa Tafa Gueye naan mbër du préparé day pare. avance bu ñëwee da lay fekk nga pare bu yàgg. barke alxuraanu karim te Médina TV dafa pare. <laughs> barke alxuraan ñoo pare. ayca waaw macha allah di la bëgg <laughs> yow. mi ngi noonu waa gërëm la bu baax a baax nee la yow saa yi ma feggoog yow contentement rek la yem ndax macha allah mhm. na la yàlla defal jàmm yow itam bu baax a baax gërëm Massamba mi ngi si terrain bi moom tamit di mhm. dang-dang ci suba ba léegi bëgg ngeen kontaan Amina itam du ma ko fàtte benn yoon waaye Saliou nee naa leen bu cadrage bi rafetee wala image yi rafet mhm. moom kase moo si jàpp borom njurul Euh, nee naa la sama waa ji yow bu ma jàqee bu ma nee juróom-ñaar ci sëñ Saaliw rek sama aaju yëpp day daal faju waaye ki nga xamante ne du ma ko fàtte tey kooku mooy Dabakh Shop sama waa ji Mor Sow mu baax mi nee naa ma génnee ci t-shirt bi ak li ma sol kaw ba suuf yaa ma ko jox ne ma mhm. demal seetaan yi làmb ji ndax mhm. tey doomu benn baraag mooy bëre mhm. waaye tey doomu benn baraag moo koy wax ndax moom moo koy waxee ca Medina TV euh, maa lay gërëm bu baax a baax sama waa ji Mor di wax ne ko ma nga ca benn baraag arécar euh, lu mu jaayul baaxul yéen ñi nga xamante ne yéen a bëgg prêt à Dubaï ak Turquie daw leen foofu gaaw di ngeen ko am bu leen demati fenn ndax moo saw am na lépp jërë ngeen law waaw jërëjëf Diarra di sant bu baax a baax rek di gërëm di euh, ci mooy li mm-hmm. ñi nga leen <laughs> leen ñaan ñu defoon bañ ko defati mm-hmm. ñu ñaan jàmm tamit Sénégal tamit temps gis nañ problème yi xaw na bëri euh, ñi ngi yëkkati ñi nga xam ne ñooy marchand ambulant yi ñu xam ne Sénégal ñun moom mm-hmm. euh, benn bopp kenn mënu ko xar ñaar dañu góorgóorlu xam ni dafa am ñoo xam Sénégal daal lam daala bu ñu xëyee dañuy wuti lu ñu am yóbbu ko seen kër tey nit bu tegee taabalam dëgg la euh, injustice dafa bëri mais nañ ko waxtaan a xam ne daal ñoo ko moom jaara kontaan naa bu baax a baax tey ci journée bi nga xam ni ñoo ko def masaw waa waa Medina masaw waa ah. oh. Medina tey oh giri oh giri <laughs> jërëjëf oh giri